wasalaatu wasalaamu ala muhammadin saaxibi nubuwat wa risala wa ala alihi wa asxaabi alhaadina min addalaale wa jacal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa xarbi arshida asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi baax di leen ziyaare di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ni mooy xalif général des mourides di ñaan suñu boroom yàggal ko fi loolu tànd ko wér seen mbokkum taalibe Zaid Ba di fas yéene ànd ak yéen ci émission boo xamante ni ñu ngi ko tuddee jaalibatul buruur ñu koy jàllale ci mañ Majmahun Nurayni TV émission la boo xamante ni dinañ ci fas yéene jàllale xam-xam yu am solo jëm ci wàllu xam-xamu diine ak lu jëm ci njàngalim Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dinañ ci fas yéene dara tamit ay boroomi xam-xam yoo xamante ni dinañ ñu indil ay njariñ yu am solo moo xam actualité lay doon moo xam lu jëm ci wàllu diine ji moo xam lu jëm ci yoonu murit noonu lañ ko fas yéenee ànd ak yéen incha allah bu ko defee ñu ngi ñaan mbokki taalibe yi rek ñu koy topp bu baax a baax ndax dina am njariñ loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu